bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wax leen ñun ay jullit leen yàlla mooy sunu boroom lislaam mooy sunu diine alquran mooy sunu téere jullit yi nooy sunuy bokk mbokk yi des na fan yu néew ñu àgg ci tànnaat ay député yóbbu leen assemblée nationale mbooloo mii am na ay député yu ànd ak yéen ci liggéey bi ànd ak nun doole ngi fi buñ ko bàyyi mu nelaw jóg leen ngeen fexe ba am carte électeur am carte d'identité jot ci liste yi génn nu sol ca bam fees dell dell dell suñuy député bu yaay yekkee añ nga ñëw tiim añ bi naan laar bi laaran doo añ bu sa yekkee añ nga ñuy tiim añ bi naan laar bi laaram doo añ in tansurullaha yansurkum in tansurullaha yansurkum sunu borom nee na dimbale ma ci penc mi ma dimbale ci penc mi penc mi ma ci penc mi ma dimbale ci penc mi pénc mi jat am nañu laxasaayu nekk ay député ànd ak ñun ci liggéey bi lu leen jaral jaral leen ko na liste yi génn na carte yi nun kat fi ne ku fi falu noo la fal ku folli ku noo la nan jàng fal ak nan jàng fal ak folli leen folli leen folli leen fal leen eh, dañoo bëgg nga dugg ci liste bi de dañoo bëgg nga dugg ci liste bi ak kenn yow bu leen ci liste bi in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum mbokk yi li woon de mi ngi fi ñu ko def na woon fi nekkul yàlla na yéen wax nag baax na waaye jëf moom bu ñëwee mën naa yëkkati wax teg fële wala boog mu ànd ci ginnaaw wax ñu ñu bokk jëf yàlla nu yàlla boole nangul man nag léeg-léeg su ma taxawee fii balaa may jeexal sama xel day ñëw ci aaya yi inna lazina kafaru تنفقون أموال في سبيل لي سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون li muy tekk mooy nun ñii kenn du ñëw di ñu jox ñuy def lii nun nooy làmb suñu poos def ko làmb leen seen poos def ci liggéey bi waaye bu leen ca yem wuti leen carte électeur carte wate bu jotee balaa yàgg élection législative yi ñëw ah ah ah wasalaamualeykum wa rahmatullah